nit ñi dañ ci war a kontaan gis nga yeneen promoteurs yi mënul def comme Gaston nañu dem seeti booy ñu promouvoir leen def ay claf comme ni mu ko daan defee xool xale yi nga xam ne ñii amuñu combat ñoom tam ñu fexe nu ñu ci génnee ay champion comme dama dama dama dama dama Gaston ñi muy tëgg ñii ñëpp moom moo leen moo leen def champion mais dama dégg ci ñenn ñi ñu ne Gaston li muy def c'est bien beau baax na xalabuñu ko mais su ko wàññi woon am na boo yoo xam te ni gëj nañoo bëri mat na trois ans ñii mat na quatre ans su ma ko jëlee ci benn exemple mooy ku ci mel ni Issa Pouye gëjoon na bëri yàgg na dugal na ko ci su ko defoon noonu est ce que lamb ji du gën a tijjeeku moo gët xam nga lu mu def moom jëli ñoom tonnerre jëli ñoom Cobra yaa ngi dégg jëli ñoom euh, Lac Rose jëli euh, mobile ama neex yaa ngi dégg jël Baye Mandione jël Zarko mais na ñeneen ñi aussi def lu mel noonu xam nga man lu ma mënul nangu Ouzin mooy defloo ba pare di xarab kii def tey Yada Ly mi dama ko gërëm ci xale yi mu promouvoir on ci euh, ci euh, weekend waaw xam nga loolu loolu dafa am solo hmm? jën séntu asamaan derul buuxante Gaston am na lu mu def moo Moguette am na lu mu def ñu koy sant nag au passage parce que moo Moguette musuma koo teg bët mais li mu def mooy li fi Leewtoo defoon te benn journée la ko def ay yi ma la lima yëpp ay grand combat la mais ci benn journée la ko def nee naa li ya daal gis nga lu mu def waaw bu fekkee ni paam kenn ku seen dafa bay sa waar Pape du Fall am na lu mu def mais tey su doon man la bëgg naa moom tamit bu def benn claf seet ay xale yu am coow dajale leen mu nekk huit combat huit huit lutteurs hmm, mu nekk tournoi bu am solo tey ñoom fàllu Ndiaye gis nga seen kilifa la tuddoon xaw ma nan lañ ko tuddee woon. ah waaw. Euh, alors loolu aussi ñuy wax ne ñu waaw ñu ngi xaaraat encore mu defaat lu mel noonu kenn ku ne na dugal sa sa sa sa loxo ci biir affaire bi.